incha allah. Pape Demba am nga loo métti de. waaw maa loo trop trop trop trop ma de so dëgg dëgg dëgg dëgg mais dañuy sant yàlla nag quoi ndax Balla Gaye 2 moom dëgg yàlla ñoo ñoo for suñu grand frère la. Géewaay la dëkk Géewaay am mais tamit démb moom am naa métteel trop trop trop si combat bi. xaar moom li démb quoi ci Boña quoi wax dëgg ndax ndax Boña dafa dugg Géejawaay daan samay copain tamit quoi wax dëgg douze combats géej waaye ñëpp mu daal yooyu fi la fekk ma nekkoon bàgg laa nekkoon doom mbër laa kon ñëpp mais am na loo xam ne day nangu ma wax di géej waaye ñu am ay géej war am doole liggéey pour daan suñu adversaire yi mais géej waaye contre tous la mais dafa metti démb bu jógee stade naqar laa jógee stade démb reeruma ndax Balla Gaye 2 da am fu ma toll si moom bëgg ko lool na te fooyoo ma ko ba ni ma xew sama xol jeex na tamit quoi mais dañuy sant yàlla ndax xam na nit mooy uddi mais mooy ma ñàkk mais lii du yoon quoi boo ñaa warul dugg géejawaay lëmb géejawaay damay bañ loolu <clears throat> benn mbër moo ko fi daan daan na fi Akon daan fi Miss ah daan fi les deux daan fi guy gi daan saa Kajoor daan saa kees mu daanat Balla Gaye 2 <clears throat> dafa ñaaw. bokkul géejawaay yëpp daan. rajaxana géejawaay ko fi daan mais rajo na ko géejawaay. daan daan ko si biir géew. non victoire victoire da ko daan ci géew bi daan na ko quatre appuis la ko daanee doon kàdda bi la ko daanee ndax lamb ñëpp gis nañ ko bëri nañu ñu dem kàdda mu daan ko kon amul leneen victoire victoire kese la waaw victoire Saldé. mais jàppoon ne maanaam combat bi. boo ñaaw maanaam signature jot mu daan leen lamb jot mu daan leen. non paysaa yi xam nga àdduna paysaa yi mooy demee nii mais Balla def na lépp mais tamit aussi tamit xam nga adversaire bi da nga koy jox cër mais ni mu bëree man na ko ciy balaamee ndax Balla Gaye dëgg ku mu sañ jël ku mu sañ jàmmanteel non kenn du wax lii mais Balla Gaye dafa jàpp tànk perte ko te du yoon lamb warul demee noonu démb moom jàppe tànk booy ñaa waroon a xel tamit doomu aadama ne si ginnaaw dafa mbooloo bu topp si si ginnaawam nit ñi bëgg ko loolu am na ñoo xam démb yoon tamit quoi du ma nangu loolu

am na ñoo xam seen lak cinq cinq cent kii mille moom lañ moom lañ passé mais Balla yi moom addunaam jag na mais na xool supporters yi nga xam dañuy bàyyi seen lépp ñëw ak ñuy werante xëy su ba ngoon di werante instant yi waa waa Géejawaay lan la ñuy wax si kalam Pikine amuñu leneen lu ñu wax loolu la ñuy wax ba la degeer moo ko fi daan par des mën nañu wax sax par décision de l'arbitre daan na ko si biir si biir si biir làmb ji mais jox ñu ko victoire si biir làmb ji loolu Balla Gaye da ko waroon xeexaale bëre ko instant yi Boy Niang daan na ma nga raq lan la ñuy wax si kalam Boy Niang amuñu leen lu ñu wax. nee kër ga Mouhamed wax des. waaw màgg rek. non Mouhamed moom xam naa moom Boy Mouhamed da du bëre sax du bëre sax na dem jàngi dem xool leneen. Balla Gaye bu mënee delloo avance Eumeu Sène sax naka delloo ñëw tekki ngeen moom ñu mu noppal ñu ñun ñëpp. noonu na na delloo avance bi rek na delloo avance bi noppal ñu quoi lool loolooy wax ji ñu dañoo sonn ñoo sonn Ah, jàmbaar yooyu baax ñu lay fay ñu ngi am jàmm baax baax da rek xam nga tamit ak dund lu metti parce que Balla Gaye moom ñun ni ñu mel ci moom dafa doy waar quoi parce que yàlla gaa ñi ngi naan réeruñ mais man bu desee semaine du ma lekk du ma naan du ma def dara yàlla xam na ne combat bi dama ci feebar sax mais xam nga dañu dagg suñu yitte yëpp dem isaat ndekkiwuñu añuñu réeruñu parce que daf ñoo tàmmal loo xamante ne nii même buñ lekkul sax moom bu daanee dinañ soulager mais vraiment moom ñu gis démb métti nañ trop trop trop trop. billahi wallahi daf ma bett. lu xew. Boy Niang Boy lu xew. xaj na Boy ñaa yàlla moo ko teg loxo rek. mais bu ñu Balla Gaye jàpp tànk booy Niang ñëpp yuux mu teer ko fa. waaw mais kuy seetaan làmb di nga xam ne démb Balla Gaye mbër mi ñëwul Balla Gaye moo ñëw mais Balla Gaye mu pare rek. parce barke alxuraanu karim ba pare woon pare ni mu war a mel bu jàppee tànk Boy Niang billahi walaay fa la jeex da koy daan. léegi ah yàlla baax na li ci kanam rawu di bët nan dem ba ci kanam. macha mi ngi fi. Boy Niang mu ndaw mi ngi fi. xam loolu moom. xaj na yaa koy wax ay fils de ñoom ñëpp a ngi fi. waaw yàlla baax na yàlla baax na daal. mais Balla Gaye daal en tout cas moom li ñu koy ñaan mooy na entraîner te lan la ko waa ndax Balla Gaye dafa benn message bu am solo sama supporter du ma mayeeti kenn yab leen kon Balla Gaye yow kon yow bu ñu yabee rek man jàpp naa ne ah yow yaa ñu yablu quoi démb moom yow rek yaa ñu yablu waaw waaw entraîner entraîner Balla loo entraîner doyul dañoo bëgg ngay entraîner bu baax boo sumee say dàll sax xam nga fexe am doole ni nga mënoon contre Modou bu mujj bi man pour man démb noonu ngay mel ci combat Boy Niang mais bi nga sumee koo damaa mel ni kuñ dóor xeer ngir yàlla entraînel man Adama géwal man maa la wax man géwal laa mais Balla Gaye rek laa bëgg sama àdduna parce alxuraan dama laa bëgg pire mais dama bëgg ngay entraînel jox ñu cër ñun say supporter bu ñu yabee démb rek yow yaa ñu yabloo. ay war maa ngi nii loo baax na. démb xaftaan ko simbi. nu may def Balla Gaye ci boppam. xam nga luy problème bi Balla Gaye du moo ni bëgguma kenn yabati samay supporter moom moo ñu yablu démb comprendre nga démb ni mu bëree koo xool xam ni Balla Gaye mii moo yablu ay supporter am parce que boo fi nekkul nekkoo fi mais ku gis Balla Gaye démb xam ni Balla Gaye ñëwul Balla Gaye mi doon ñëw làmb yéen seen bopp xam ngeen ni Balla Gaye ñëwul comprendre nga parce que am na loo xam ne instant boo xoolee doon safee mais ñëpp xam nañu Balla Gaye dafa am ay blessures yu metti bëre waale yooyu yëpp pour sauver euh, bésu jàmbur bëggul lépp Gaston am problème parce que te làmb ji jàpp nañ date ba pare premier janvier bëgg ko salteel mais du ma xool lu neex nit wala lu rafet lu rafet ci nit te man du ma xool sama après sama carrière ak li topp sama ginnaaw ak li nekk ci géejawaay dafa rëy pare bëri noonu géejawaay kenn bëggu ko yaa ngi gis démb ay ñoom rëg-rëg dugg fee dekk ci ay daw làqu gis nga xam luy problème bi ku nekk da nga yam fi nga dëkk làmb léegi affaire da gox la waaw yow lu yaayam pik moom fan la dëkk waaw léegi du yam caaroy affaire yi gox la léegi làmb nawet tànn ku nekk sa gox ngay lijjanti comprendre nga ñun géejawaay ñun faale wuñ keneen kuy bëre lijjanti wuñ keneen comprendre nga na yam ci caaro yi pikin yam ci pikin ñu bàyyi bàyyi daw laaxu yi xam ku nekk na gëm sa gox comprendre nga la mais ay daw laaxu yi moomul fenn Balla Gaye ci boppam nit ñee ko lañ bàyyi jàmbur bi Balla Gaye moo fi nekk ñun Balla Gaye bu doon am sans défaite ñun Balla Gaye lañ gëm ñun moom lañ bëgg moom la ñu yàlla dénk géejawaay bu ñu xamee cause de Balla Gaye mu neex ak mu naqari dañ koy wax te yàlla tax géejawaay fu mu turam fu mu yegg ci làmb Balla Gaye moo tax mu yegg fa tey jii comprendre nga Balla Gaye desalatuñu dara mais xam nga luy problème bi ah? gis nga mbër boo blessé du ma xool lu neex nit wala lu naqari nit man bu ma blessé dañuy rapporter ñu dem beneen Balla Gaye blessé parce que Balla Gaye moom bu blessé moo tax man la instant boo ko xam nga sama biir discours nee naa boo ko waxee dootu safe parce que fi mu boo nee Balla Gaye dafa blessé dootu safe mais ñun xam nañ barke yonent yàlla Muhammad laa lay waatal yàgg na billaahi wallaahi watallaahi du ma ko waatee man li may wax xam naa ko ñun xam nañu xel Balla Gaye dafa blessé parce que chaque jour koo xam ne heure bu ñëwee contact boo paree dañu lay frotté si genou comprendre nga la dem boo xoolee action bi ni mu demee tànk Balla Gaye bi mu lemoo bi sa waay dawee dàq ko plaqué ko tànk bi lemee xam nga ni Balla Gaye doon na tuur Boy Niang mais boo gisee si Balla Gaye nga xam ne kii dafa am problème genou Balla Gaye li ma la wax Balla Gaye moo ñëwatul comprendre nga day faju ji boo wér soog a bëri mais du ma bëgg lu neex nit parce que après lu neex nit moo indi lii lépp mais nag na xaar Boy Niang mbër yaa ngi fi des na fi du jeex ay fils de Balla ngi fi ah ay ñoom Macha Pereira ngi fi suñu champion bu mag bi mi ngi fi yaa ngi dégg la ay de Guiers 2 yaa ngi dégg la Boy Niang moom garaawul quoi mais Boy Niang liy ay lamb mi ngi ñëw léegi te Boy Niang parewuñ moom ñun Boy Niang daan Boy Niang moo ñu gënal barki Seydina Mouhamed ñu jëlaat roi des arènes Boy Niang dafa instant ma wax sax ci Boy ma métti ci Boy Niang kar comme xaw rek Boy Niang lan la fi def Boy Niang lu fi def rek xam nga li xew. Balla Gaye ba man la jarul lim laa la wax ñoom xam nañ li xew ñun ñii xam nañ ñeneen xam nañ ba Boy Niang lu mu def géejawaay Balla Gaye def na ko Pikine point amul leneen. mais Boy Niang fekk seen ponkal bu gën a rëy daan ñun ñu fekk ponkal yi gën a rëy ñu daan leen. waaw yow waay waay bàyyi ma waay bu lim waay bàyyi ma waay bu lim kii li may wax moo gën a xam man foofu laa yem point c'est tout parce que xam nañ ponkal yi dama ne lépp lu Balla Gaye lépp lu Boy Niang def géejawaay Balla Gaye def na ko Pikine ponkal mu Balla mu booy ñaa daan Guédiawaye ponkal moom Balla Gaye daan na la Pikine point surtout. mais le leen maanaam signature bi dafa ñëw duma leen signature bi lamb ñëw ci ah, def leen mais dañ daan duma ci signature duma ci lamb contre Tyson dañ ko duma ci signature duma ko ci lamb bu ñu ko defee waaw noonu la lamb la n'est-ce pas waa jeex na. <laughs> mbaa yi nañ ci jàmm bu baax. loo dundee dem ah, bi. ni ñu ko dundee dañoo metti Balla Gaye respecté wul Boy ñaa Balla Gaye bu respecté woon Boy Niang li mu bëreeg moom waru kaa bëreeg moom ah ñu sant ñu ko lii te combat bi combat capital la woon géej waaye gi yëpp di ko xaar ah kon Balla Gaye ñàkk a respecté moo tax mu bëree nii waaw ah, tam Boy Balla rek laa koy wax ah ah ëpp na ko demee ci li mu ko doon wax ñooñu liggéey ñooñu liggéey kon mënoon naa ànd ak moom dem ànd ak moom dem liggéey te Balla Gaye li ko Lac de Guiers wax aayul ñooñu ànd dem liggéey loolu maanaam njëriñ la ci moom ah, te la de Guiers instant bii nii ñàkk am komba ak am komba day dem ci géej gi di reyante Balla Gaye saa bu amee komba day dem di dem di dem di am di entraîner loolu fan la ko teg te bi da nga ko woon. combat bii nii ah mooñ ci ance moo ko lan seetaan ñu ñu ñu waa géej waay foogu ko ah. Balla Gaye non non Balla ni mu waroon liggéey liggéeyu ko te Balla Gaye li mu bëri dem ka moo ko sant dafa bëri lu ko neex ak yab ñu. ah moom Lac de doy na jàngat Tapha Tapha Tine doy na jàngat ah Balla Lac de ba muy bëre moom dafa jël temps respecté ñu ah ñëw téye booy ñaa daan ko dem ñibbi Balla Gaye ñëw ko moo ko songaloo Balla Gaye li mu bëri dem baaxul Balla Gaye kenn xamee woo ko jël tànk kenn xamee woo ko li mu bëri tegu ko fenn te respecté wuñu ah man nag lenn nag la koy xamal Balla na tekk ngémba mbay bëre waaw na tekk ngémba mbaay bëre. Balla Gaye war a mooy yow Balla Balla Gaye si li ma gis instant bii nii dañuy gën a jox gàcce ni ah, ma gis nii mu koy def nii dañuy gën a jox gàcce ah ni may wax naa si jaaraat Lac de ëpp na ko demin wax bi mu ko waxoon ñëwoo ñu liggéey dafa war a ànd ak Lac de Guiers dem liggéey te Balla Gaye nag àndal tuur ak léegi ay mbër de Balla Gaye léegi àndal ak ñoo xam ne dañ koy wax dëgg mbër da ngaa war a di ànd ak ñoo xam dañ lay wax dëgg xam na làmb Balla Gaye ñi muy àndal léegi doonu doonu ay mbër waaw. dama bëgg jàpp ne Balla Gaye businessman. Balla Gaye Balla Gaye instant bii nii business la ko jàppee nii business la ko jàpp ñu ñooy xalaat dee ñun suñu sama sama place lu ne laa fay daj sama marché lu ne laa fay daj di dégg lu ne instant bi xëyuma ñi ma maa dem am na lu ma fay xaar. man deretu géej waaye mooy daw sama yaram bàkki sin Touba combat Balla Gaye damay dem combat Lac de Guiers damay dem man yàlla moo def man dama leen bëgg waaw a ah ah. teg la ñaari defet boo ñaar la ñaari defet ñëw a ah, bap waaw yow ah boo ñaa instant bi ni mu def ni mu def Balla dafa rëy boo ñaa ni mu def Balla dafa rëy ñaari mag rak nga daan leen ah Balla Gaye combat bi ñu fonk mi combat capital kon Balla Gaye lu ko fonk fu ne war na ngaa mën a fonk lu ko ëpp ah te leen nag la koy xamal Balla Gaye nan dem bàyyi bëre dem seet leneen na bàyyi bëre dañuy gën a jox gàcce waaw. daan daan daan loolu rëy la booy ñaa li mu def nii ah, ñu ñu doon roi des arènes sax amuñu ko ni mu def nii raw na roi des arènes ah ah. coow guy gi ak Lac de Guiers doo du moo ko yàqal. déedéet la Lac de Guiers mënu yàqal Balla Gaye guy gi mënu yàqal Balla Gaye Lac de Guiers li nekk si xolam a ah, lu nekk si xolam mooy maanaam Balla Gaye daan booy ñaa jël bu rëy kon moom ni mu ko daanee ah. Lac de Guiers amul lenn loo xam ne moom yéene na ko bala Gaye lu bon déedéet ñoom ñaar ñoo bokk dëkk Casamance ñoom ñaar du tey kon maanaam eh, ñoom ñaar ah seytaane yi rek ñoo leen sonal ñoom ñaar seytaane yi kese ñoom ñoo leen sonal waaw. parce que ñoom ñaar ba ñuy ànd chaque jours suba ngoon ñoom ñaar ñëpp ñoo ngi woon si ligne bi bu baax di am ay ndam chaque waaw loolu lépp nag la moo ko waral la loolu lépp la moo ko waral cogg yi rek. bëgg si Balla Gaye dara bëgg si Lac de Guiers dara di dem di wax fii di dem di wax fii waaw waaye Lac de jàppalul Balla Gaye dara Balla Gaye jàppalul Lac de dara Boy ñaa contre moog Lac de Guiers Balla Gaye sonn def na si nu ne pour euh, Lac de daan euh, euh, Boy Niang waa si nekkul tamit waa Pikine lan gën a nekk benn parce que boo xoolee di démb ñoo ngi wax naan ça fait un mois ngi Eumeu Sène jël kii di Boy ñaa yóbbu ko Lac Rose di entraîné moom suba ngoon guddeeg bëccëg ah, ah loolu loolu su waa Eumeu la rek loolu su waa Eumeu la dafa jug pour jàppale euh, Boy Niang waaye Lac de Guiers moom euh, jàppale na Balla Gaye Lac de na Balla Gaye démb gisoon lu mu def isaat. kan mooy arrêté Boy Niang ah Lac de Guiers arrêté na ko Lac na ko Lac de Guiers da kaa humilier Lac de Guiers na Boy Niang ah, ko jël bu rëy ñëw fekk ko ah. maanaam passé ay kay da ngaa daan ci biir digg géew bi danoo def lu leen lu ko neex waaye Lac de da kaa daan Lac de Guiers da kaa humilier Lac de daan da kaa fekk ba Pikine toroxal ko ah ah ñun nag instant bii nii nag ah danoo jug pour jàppale Lac de Guiers nag ah danoo jug pour jàppale Lac de Guiers instant bi moo fi des Balla Gaye defal nañu lu ne waaye instant bi ñun xam na ni instant bi mënatul la danoo jug nag pour jàppale Lac de Guiers te Lac de ñoo ngi si ginnaaw dañ koy jàppale ñun ñàkkoon si làmb dañ koy amaat. waaw ah, bu soobee yàlla waaw.